asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy siiw sur Wassare Lamb Wassare TV kon nuñ koy defee rek à chaque fois tey nag ah, nee naa leen mbër yi am ko yi naam nag ah, corona bi nag moo empêché woon lépp mais am nañu yaakaar li nga xamante ne moom mooy saison bii di ñëw incha allah ñu bëre tey nag ah, mu fekk si ki nga xamante ni mbërum géej waaye la. mu nekk koo xamante ni xale la nekk koo xamante ni ñëpp ràññee ko ci jàmbaaram ak ci li nga xamante ni moom mooy ci làmb muy marle école de lutte Papa Kane moom la ñuy waxtaanal muy nduñu nag fii nag ba ci géej ci juuni ñun sax dañoo entraîné tey gis ngeen tey dama ñaqee daf daf daf ñoo entraîné noonu xaw ma nag day basé wu ci man xaw ma nu mu dee noonu mbër maa ngi lay maa ngi lay siyaare bu baax di la nuyu Fatma Dieng xam nga di leen dalal jàmm di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di wax yàlla na jàmm nuyoo bi am na solo Marley kenn du fi nekk naan kan mooy Marley parce que mën nañu wax ni àdduna xam nañ la mais tey boo ñu doon résumer sa parcours Marley lan la may wax. waaw mais suma parcours moom comme li may wax rek Marley benn jeune la boo xamante ne dafa nekk si làmb ji bay waaram xam nga nekk si liggéeyam nekk si entraînement waaw loolu daal xam nga mooy suñu ambition si làmb ji daal wax dëgg yàlla. Mhm. Mhm. Marley enfance am géejawaay la ko defee. waaw sama enfance moom géejawaay laa ko defee. waaw bañu ko ba ës lan ma tuddee woon si. Mhm. mais mbër ñu tuddee la woon ës mais ës est-ce que mi ngi woon ci làmb ji tamit ndax ñu bari dañ naan Marley moom dafa xaw a kii quoi dafa timide quoi. waaw sama ës mi ngi si làmb ji parce que boo gisee làmb yi jar xeex damay xeex ba génn tere mais làmb yi jarul xeex moom damay ñëw bëre xam nga bu laajee quelque coup nga xam ko def action ñu bi mm. waaye. Marley jàng nga école. non jànguma nag. mais jàng nga alxuraan. waaw jàng naa moom. Hmm. Hmm. seen daara fan fan nga demoon dem nga kon gars yi ni ñuy def génn dem dem daara wala yow fi nga teg ko. génn génnu nag dem daara mais fii laa jàngee alxuraan arab Oustaz Guèye. Hmm. Marley wax nga ko sa enfance géej waay nga ko defee. te ñëpp xam nañ ne géejawaay euh, Pikine géejawaay ci banlier bi ñu bari dañuy si lañuy si lañ la découvrir mën nañ ko wax euh, à travers mbappat yi nga doon def mm. tey boo ñu doon expliquer sa enfance géejawaay nan ga fi nekkee woon ak tamit virus làmb bi nan la duggee ci yow. waaw virusu làmb yi ni mu duggee si man mooy comme ni ma wax rek dafa am sumay grand yoo xamante nii xam nga écurie Kayor lañ nekkoon doon entraînement ma leen di topp di leen seetaan ki nga xam ne moom laa tuddee suma bopp muy Marley numéro un moo fekk écrit Kayor ne ma yow xam nga mbër nga ma ne ko noonu mu ne ma da ngay ñëw ma inscrire la tuddee la Marley numéro 2 xam nga fayal ma 1500 ma inscrit loolu moo indi Marley bi loolu moo ma dugal si làmb tamit mun naa ne su ma duggee si làmb à cause de Marley numéro 1. Mhm. Mhm. mais Marley virus làmb kii nga parce que amoon nga frère buy bëre réparé. waaw réparé moom laa doon seetaani mook Pape Thiam numéro 1. ñoom ñaar laa doon àndal xam nga di teel seen bagage xam nga di téye ngemb bi bu ñu amee combat may toog cumbukaay ba yàlla dogal xam ma ñëw si làmb yi raxal si lu yàlla def kenn mënu si dara. Mhm. Marley euh, wax nga ko léegi euh, mais Marley nan la nekkee woon fii ba mu nekkee xale parce que gis nañ ni euh, Sa Thiès ñu ko nuyu au passage mi ngi doon wax ni <laughs> naa sàcc cuuji jàmbur yi rek <laughs> mais yow sa enfance ba boo ko ci ñëwoon sàcc cuuji jàmbur yi. non suñu enfance moom def nañ lu ne xam yooyu moom. ay ay sàccantu la quoi comme nekk affaire def affaire xale xam nga dafa affaire de jeunesse la dañuy dem sandika xam nga di waaw nekk si màdd yeeg mango yeeg yooyu bi ñuy gën a doon tout tànk waaw di di round xam nga rek mooy loolu mais bu fekkente ne nii moom dañoo xiif ba xiif amuñu lu ñu lekk dañuy ut ay feeraay wala dara xam nga dem. jaay ko suñ demee marché bees am na benn waaju fa nekk MC Juma buñ ñëwee mu jaañu ay gàddaam ay yenaat xam nga ñu lekk ba nice mooy loolu yaa ma gën a xam waaye. <laughs> moom tribul woon nga waaw tribuloon naa moom mais pas yenn tribul yi nag quoi pas xam nga nekk fi di def yoo xamante ni ku la fekk da lay xeeb wala dara yooyu moom dunduñu ko quoi. maa la école du lutte Papa Kane nga mës nekk. non écurie Kayor laa njëkkee. mais nag falaa defee mbapat igri Kayor ba ba ma fay jógee soog a ñëw école de lutte Papa Kane xama tamit def fa mbapat waaw waaw xama rek waaw ba yàlla dogal ma ñëw si arène bi ñaari écurie yooyu laa mos a nekk. Hmm. Marley ñu gis ni ñu bari mbapat lañ la découvrir hmm. parce que maar Marley daan mbapat ndax bu ñu nee mbapat fii Géejawaay waaye boo nee Balla Gaye hmm. ne Alioune Seye 2 ne ay ay les 2 après da nga naan Marley ci boy yi mu jéefal la ci mbapat mën nga ñoo expliquer sa mbapat nan la demee woon. waaw suma ma ni mu demee moom xam nga bañ na ko ba suma ma làmb avant moment sama tur avant moment jiitu sax si arène bi fekk mbapat yi moo tax dama mbappat rayante xam nga ba nit ñi xam nga ba yàlla dogal man ak Aziz Pambaay ñu tëgguñu xam nga ñu bëree làmb jur neex esaan njaareem ñu match nul noo non pas boobu moom mi ngi toj côté mooy toj sama côté suma benn grand maam seex mi ngi woon écurie Papa Kane bu ñëwee toog xam nga Pambay Sall baax mel moo fa ñëw bi mu ñëwee ne laa Marley laay ñu ne ko mu ne ma non non wax ma Marley bii Marley beneen bi ñu ne ko Marley moo nekk nii fekk maam Cheikh mi ngi sol sama tiset ne ko kii ngay wax mu ne ko waa ah, kii laa wax ko mi ngi ne mu ko non non kii ni may déggee turam ak ni mu toll nii kii du kii quoi mu ne ko moom la nag. xam nga ñu ñëw waxtaan mu fay ma cinquante mille ma ñëw xam nga man ak Aziz ñu bëre bat ñëpp jug gars yi ne doy na ñu marché niil xam nga père Ousmane dem si kañ yi ne ko gis naa benn booy boo xamante ne mi ngi géej waaye boo ko tëggalee dina dina la indil mbooloo yàlla dogal xam nga sëñ Modou ñaa bëgg a tëgg sama combat ak après géejewaay bi xam nga ñu ne noonu duñ ko seetaan ñu jox ma Modou Dione ma bëreel sëñ Modou ñaa beneen combat bi soppu ma bëreel sëñ Modou ñaa troisième bi laay soog a bëreel Kandji. Euh, mhm. à part Pambaay est ce ndax da nga doon toj mais est ce que am na mbër yoo xamante ne instant bi ñu ngi lëmbee làmb Marley bëri na ak ñoom am na ci. waa ñi ma bëreel monsieur ëpp boo ñaa bëri nañ ba pat soixante douze oh, heures waaw boobu xam nga <laughs> quart de finale lan dajante soixante douze heures Père Mbaye Gueye xam nga Ndiaye Malick xam nga américain ñëw ne ma ñi nga bëreel doomu dégool la affaire yooyu noonu xam nga may leen lan doomu dégool la mais man sama gëm-gëm laa am dama koy daan yaa ngi dégg waaw man sama man moom sama gëm-gëm moom Bombardier sax bu taxawee dama koy effacé jàll ba keroog may am ma jël xam nga li nii yàlla dogal xam ñu daw jàppante roofoo affaire yooyu noonu mu daw di ma sol naax di ma dàq ak caxabal muy tourné def rotation xam nga tourné def quatre appuis yooyu làmb ji xam rek yem foofu mooy loolu waaw mais sant yàlla daal parce que ay ndaw lan xam nga nekk suñu liggéey di bëre waaw mu yóbbu ñu fu daal làmb ji xam nga boole ñoog ñu ne mais nag sant yàlla daal. Hmm. ban combat nga mujjee bëre arène astafurlah mbapat. combat bi mu mujjee bëre mbapat. non est-ce que du man ak Mor Kébé su ma juumul Mor Kébé wala Baye Peul Baye Peul. Baye Peul meen bu rog énergie moom laa mujj bëree Mbapat. Mbapat bu fu mu woon. Mbapat boobu mi ngi woon Dior parcelle. nga fekk ko ba ko ñoom. ma fekk mu daw di ma xam nga song ma dàq ko mbot mbotum colol boo xamante ni xam nga. billaahi ñu raw génn si biti. arbitre bi waat pire ma daw jàpp ko laxu si ndig bi dama bay roof ca xabal gaa yi ñëw teegu. yaa ngi dégg xam nga après gars yi lamb yi nar a yàqu affaire yooyu ñu ñëw taxawaat jàppante moom it mu daw jàpp ma xam nga tourné maanaam pour bëgg ma ëñ ma jug bi ñu luyee ñu daw ànd rëpp mu jug gars yi woote mu jug dem yoonam waaw. lu rëy lañ bëre man ak moom. non boobu Modou Lo ñëwul. waaw Modou Lo ñëwul mais ñi muy àndal waa parcelles yi xam nga ay super jamono gars yëpp ñëw nañ si. kon Mate da nga daan jóg bàyyi sa koñ yeneen kii mais loolu du risque ndax mbapat ci nekkoon yëpp. non du risque parce que suñu ambition la suñu bëgg-bëgg la am na loo xamante ne nii bu fekkente ne nii xam nga da koy xalaat si làmb doo ko def ndax benn barak bëri naa fa dem ba final yàlla xam na ne xool 44 ñu tiimale ma ay jam ay poutrelle ay jaasi billaahi ñu ne ma boo daanee kii dañ lay rey. boobu maa ngi final fàtte naa ku ma tayanteloon sax ah ma daan ko gars yi bañ indiwaat ko ma jàppaat ko daan ko ba toog si kawam mais xam nga loolu lan lay xoxatal boo doonee tapet nag xam nga ñu jaar sa kaw doo def dara te loolu noonu xam nga erreur la quoi waaw loolu doxul li dox daal mooy yow nga ñëw wane fulla ak fayda lu li licencié bi daal nga def ko yow ba loo am jël. Mhm. lutte avec frappe nga dugg ci ban année. waaw fin 2010 waaw fin 2010 laa si dugg. sa premier combat sëñ Modou Niang moo ko tëggoon. waaw sëñ Modou Niang moo tëgg sama premier combat moo tëgg sama deuxième combat. combat boobu nan la demee parce que da ngay bëre mbapat ba benn instant mënatoo bëre mbapat parce que mbooloo ak ñi nga doon bëreel léegi tey ñu ne la arène ngay bëre boobu nan nga ko doon préparé. waaw maa ngi ko doon préparé ak suma xel mu sell ñu bëri nag dañ doon tiit si xeex bi mais tiituñu si bëre bi tiituñu si dara xeex bi lañ doon tiitee. waaw danaan mbapat ak arène du benn yàlla dogal ma ñëw juróom xeex sax laa gën a def. waaw ma xeex xama taxaw bëre Esat Ndiarème la woon waaw indi mbooloo bu waaw bu doy waar xam nga rek yaa ma gën a xam gone albaa gi moom ak gone géejawaay gi mooy loolu ñëpp dañuy jug waaw xam nga rek ba léegi tamit bu ma jugee gars yi jug te loolu daal xam nga rek mbiru suñu borom la tamit daal wax dëgg yàlla. Mhm. boobu ñaata lañ la fayoon sa premier combat. quarante mille. waaw quarante mille lan nga ci préparé <laughs> see préparé moom quarante mille moom mënoo see préparé moom. xanaa kay quarante mille moom bu ñu la ko fayee vingt lan lay jox ménagère bi jël li mu war a jël xam nga waaw nga nga waaj préparé wu say nit daal ñoo ñëw jàppale la xam nga waaw ba nga siy génn. sa deuxième combat yaa kan la woon. la woon. trompeur waaw non trompeur si trompeur waaw. Uh-huh. moom laa bëre ñu fay ma quatre vingt mille sëñ Modou Niang combat moom moo daan. waaw ah. ah, moom moo ma daan. au passage borom États-Unis sama frère booba ah, làmb ndam la ñëwal. cher Ouma. maa ngi koy nuyu moom it xam nga di wax ne moom jantal bërëda la borom baax la xam nga waaw di ko ñaanal fu mu nekk tamit xam nga suñu borom defal ko jàmm. ba lépp loo xamante ne lu mu yóotu la rek suñu borom defal ko ko parce que moom borom baax la borom yoon la làmb nag moo doy waar làmb moo tëradi booy daan du ñu gis si façon défaut bu la ñuy gis mais champion la trompeur. billaahi wallaahi ndaanaan kulli fadrin mi ngi noonu. Mhm. Euh, Marley ah, ba nga jógee foofu noonu nag nga commencé ci combat yi ndaw yi yàlla di la defal jàmm di la defal jàmm euh, sa combat ban kii nga bëri combat spécial sa combat spécial ñaata combat yu ndaw nga bëri soog cee teg spécial. waaw naa booy xool ay cinq cinq combat préliminaire booy xool de. Mhm. waaw. waaw kase day gën a yox mais kase nag li muy yoxamtee du du tax ñu naan xama nga yox waa yaa ma gën a xam mais boo ñëwee ba toll fenn fi moom ba ñu ràññee la yow si ngay soog a taxawee kat xam nga lii laa bëgg ak lii. gars yi bu ñu xoolee ne lii arrangé na leen ñu tëggal la ko bu ñu xoolee lii arrangé wu leen ñu xool li nga bëgg yow ñu xaw la see wàññilaat tuuti rek xam nga nga mën a déggoo ak ñoom quoi. Mhm. sa premier combat spécial yaakaar la woon. suma premier combat spécial mo est-ce que naa ko <laughs> est-ce que du mën a wuli su ma juumul mën a wuli la de. wuli meen. wuli wuliwaat. waa neexul. waaw waa neexul wa moom laa ko njëkk a bëreel de Assane Amadou Bari. kanji moo tëggoon loolu maa ko daan. Mhm. mais wuli yow doo boo lim kii doo ci boole maar sax man loolu maa koy soog a xam. la demee woon ba wuli doon nag boobu dafa nekk si waaw dafa nekk si si dynamique bu baax sax wax dëgg yàlla. billaahi xam ñu tëguñu ñu xeex xeex bu metti bëre xam nga ma am ndam si kawam. Mhm. sa premier grand combat yaakaar la woon ak kan moo ko tëggoon. man ak Ousa Dóo la. Ousa Dóo mel Ousa Dóo waaw sama xarit. Mhm, moom laa njëkk a bëreel kanji moo ko tëggoon. Mhm. est-ce que ba nga koy jël booba xamoon nga kan mooy Ousa parce que Ousa temps yooyu mi ngi faas suma juumu la di compétir macha allah ndax dafa mën a bëre. ba ngay jël avance Ousa Dóo lan moo la ci dugaloon. waaw avance usa bi ma koy jël xam nga dafa am suma benn booy boo xam ne mi ngi Maroc léegi mooma sëyru ma naan ko kii li muy def tànkam bii nii xam nga di ko jox gars yi gars yi di ko jël muy turne affaire kii ma ko joxoon ma jëlee tànk bi dama koy damm xam nga rek mooy loolu mbër mu ndaw yaa ma gën a xam waaw yàlla dogal xam nga rek man ak moom suñu ñu dem ba suñu làmbu taxaw sëñ moo kii ne ma mama sëyru ne ma gis nga yàlla wax naa da ngay damu tànk bi nag damm ko mhm. yàlla dogal ñu ñëw xam nga rek ma indil ko xeex bu métti indil ko seytaane mu daaw ne xam nga rek bët bi mënatul gis affaire yooyu noonu ñu jox ma victoire ma dem. waaye bët bi waaw bët bi am problème mu ne mënatul bëree waa Fass yi taxaw mënatul bëree mënatul bëree xam nga rek waaw yaa ma gën a xam waaw ñu ñu bëlëfe noonu xam nga waa Fass yi moom ay ndaxaan lan. Mm-hmm. <laughs> après ba nga jugee ci Ouza 2 kat nga jël. bi ma jugee si Ouza 2 doomu Jalaaw laa jël suma ma juumu ah. la waaw. doomu Jalaaw doomu Jalaaw moo ma daan. lébu yi nag doone kay doomu Jalaaw moo ko daan dañoo kii dañoo garaaw lébu yi. lébu yi ay ndaanaan lan. carte papi général ñu koy nuyu. doomu Jalaaw waaye moo ma daan. Ah. mais combat boobu nan dañoo xeex. bëri lu yàgg ah. lu yàgg. waaw mu xam nga mu soog ma daan mooy loolu. xeex nan bëri nan. mais xam lu ma jaaxal ci bu ñu résumé mooy loolu. seen ñaar seen combat bi nan la demee woon nan ngeen bëree yéen ñaar. waaw ñun ñaar suñu combat bi dañoo xeex xeex bu metti xanaa déggoo li ma la dañoo xeex xeex bu metti boo xam nga waaw ñëpp taxaw ñu bëre bëre bu metti waaw def mu am ndam sama kaw. Mhm. nga jóge ci doomu Jalaaw. ma jóge si doomu Jalaaw dem si Farouz suma juumul. mais gars yi mais yow mais yow est xam nga ne ay combat yu xotteeku rek nga jël. ay combat yu metti laa jël moom wax dëgg yàlla. Farouz bu jàmm gën waaw. Mhm. waaw noonu la demee. combat bi nekk nag. waaw ma am ndam si kawam. Ah. Mhm. combat bi nan ngeen ko bëree yéen ñaar. Farouz waaw arbitre bi dafa sifflé ma dox si kawam moom. Mhm. waaw indil ko seytaane xama rek am ndam si kawam. waaye. da nga pare ci Farouz. Farouz naaru sokaas laa jël. naaru sokaas mu bëre war a bëre ak Jackson. ah taxaw na moog ah. ah, de. waaw moom laa bëreel après Naaru Sokaas Xaarim Sarr. yaa Naaru Sokaas nu am dam si kawam. aa Sokaas yaa ko hmm, am na problème. ah la daal làmb <laughs> la de. mais Jackson am na problème de. Jackson waaw daanaan la moom. mais Naaru du nanguwaat est-ce que mbëru géejawaay kii waat ko est-ce ah, la de làmb moom bàyyi comme Jackson moom géejawaay la nekk dañ koy ñaanal mu am ndam rek. Hmm. waaw. Euh, ñu gis ni euh, ba léegi yaa ngi ci li nga xamante ne moom mooy euh, sa parcours. Mm-hmm. sa combat ak doomu dàngu nan la demee woon ak komba boobu loolu nan la taxawee. waaw sama combat ak doomu dàngu suma juumal Assane Ndiaye moo ko tëgg xam nga waaw ñu bëre ko mu làmb joo xamante ni xam nga wax dëgg yàlla maanaam. xalaatuma si woon sax ay defet na billaahi moo tax après bi mu si amee defet waaw daf ma daf ma touché daal bilaay sa kër làmb ji niñ ko paree ak xama rek daal làmb li si nekk kenn mun la koo wax. Hmm. ba ci doomu dàngu fan nga dal. doomu dàngu doomu dàngu daal Farouz Valdo Valdo boog. Valdo laa bëreel waaw borom Pikine. ak mën a bëre laa xam nga ñu xeex xeex bu metti hmm. waaw mu setewoo la la fanaani ji. lan. waaw parce que dama ko jàpp duma ko ba bët bi waaw mooy loolu. ba bët ba bët bi suulu mënatul gis. da nga ko doon duma ba mu wàcc. bilaay parce que dañoo xas-xas loo xam nga mooy loolu noonu taxaw xam nga rek moom jàpp na ne benn instant xam nga rek bu ñëwee bëre bi comme moo ëpp si ñun moom la ñuy ñëw taxawee affaire yi noonu ñu taxaw raag ba waaw ba génn télé man moom boo ma woowee si xeex mooy nga naar ci guuxum soow na damay xeex ba ba génn boîte vocale non Valdo sans verdict la moom. kon ni nga defoon kii rek. waaw Valdo moom sans verdict la. waaw boobu sans verdict la waaw parce que dafa damay daw di ko dàq caxal mu may tuur bi ma tuuree ma def car rapide gars yi ñëw at safurlaa trois appuis gars yi ñëw atte boo xoolee Lamine Samba bi ñu victoire mi ngi naan Valdo daan na ci difficilement waaw xama rek arbitre yi des fois bu làmb ñoom lu leen neex waaw lu leen neex waaw loolu tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne gars yi dañuy préparé wu dafa am ñu nekk seen ginnaaw ndax boo xoolee tey sama combat ak naar sokaas lu mel noonu amoo ndax dama ko daan ñu bañ ma daanaat ko ñu bañ xam nga ba gars yi naan nan jéem a xool nuñ def parce que naar sokaas tey bu daanee rek baxan mu noirut ci biir stade bi ko ñaari jël moo amoon ci biir benn takkusaan. ñetti jël moo si parce que dama ko daan ñaari yoon. ñu bañ ñaar yëpp troisième bi si la ñuy soog a joxe verdict waaw nga imaginer tey bu fekkoon te ne après dama si jëlee defet xam nga mun na mun na doy waar quoi mun na metti trop parce que après ñu nekk sa ginnaaw ñoom dof la ñu doon ñu gis dara waaye. nga jógee ci Valdo daalaati kat. Xaarim la Pythagore. Xaarim Sarr nu mu demee. Xaarim Sarr ñu bëre bëre bu neex. Mhm. waaw prix lañ def ma daw cokkaas ko mu daw topp ma ma mel ni ku ko ragal mu ñëw ma laal tànk mu fag na fa ma dem si ndig bi. waaw mooy loolu non dañuy taxale rek. <laughs> nga jógee ci Khadim après la Pythagore. borom parcelle. Mhm. combat bu nekkoon bu kii ah. bu critique woon sax ku ne di wax xam ma jàpp ko ñëw taxaw xam ne pour mu ñëw faa mu jox ku. Demba Diop la waaw. arbitre ne prix ma taxaw liir ko. dugal ko ko tëf mu ñëw ñu taxaw jàppante xam nga mu daw rokas ma rokas muy ñëw ma mbas ko ma ko mbasee daw bëtt ko xam nga wër ko ndomba waaw làmb ji yem fa mu nekkoon combat boo xam te ne danaa ubbuloon ay opportunité yu baax. parce que ñu bari dañ la cee gën a gën a découvrir. koppar bi commencé bari. coow li gën a yokk nga jóge ci la Pythagore tàbbi fan. si Diène Kairé. laa bëgg waaw. sa combat ak Diène mu nekk combat boo xam te ne ba koy jël sax moment yooyu am na ñu doon wax bu ko jël Marley jël combat bi combat boobu lan moo taxoon nga jël ko da doon indi danga doon confirmer wala lan moo taxoon nga jël Diène Kaïré non du question de confirmer sax ndax booy confirmer feneen laay confirmer mais ma confirmer si Diène Kaïré ndax non boo déggee ma waxee loolu mooy comme li nga ne confirmer bu doon confirmation mooy li ma confirmer si ginnaaw maanaam xam nga boo xoolee ay combat yu ko la quoi léegi nag Diène Kaïré dafa am ñoo xamante nii su may staff lan xama taxaw ne ma combat bi kat ñi ngi waxtaan ak Luc Nicolaï affaire yi noonu gars yi ñi ngi seeg affaire yi non Luc Nicolaï moo ko njëkkoon a bëgg gars yi di si wax xama sottiwul après Pape Jalis ñëw bu ñëwee gars yi waxtaan si waaw ñoom ba tey xama rek Iba maa ngi nuyu ak Boy caam ñëw ne ma kat xama ñu ngi waxtaan ak gars yi mais nii ak ni weeru koor la tombeel jël ko xam nga may leen garaaw comme man damay jël loo xamante ne des fois. doo leen ko bëgg waaw mais xam nga rek. tamit combat bi maar la yow d'accord woon ci combat boobu. waa mais des fois say kilifa moom buñ la nee lii la rek lii la. Euh, Marley sa combat ak Diène Kairé buggoo ko woon mais staff bi wax nañ la pour nga jël ko mais combat boobu lan moo waroon buggoo ko woon. waaw combat boobu noonu lu waral bugguma ko mooy boobu maa ngi xool ay Moussa laa doon xool xam nga ak ñeneen ak ñeneen daal mais comme demee na noonu après xam nga rek staff bi wax gars yi ñëw taxaw mënu ma leen bañal ma nangul leen ah, te booy xool dox nañ ko lu tolloog ay deux mois. combat bi après xam nga nanguwul taxaw fekk ñoom déggoo nañoo waa kër Diène Kaïré Rémy si man la desoon waaw mooy loolu mais comme xam nga rek wax kilifa waaw la sant. ma ànd seeg ñoom. préparation bi nan la demee woon parce que doomu mbër la. Mhm. moom tey mu waroon a ñëw am leneen lu mu def pour jaar la mhm. préparation bi nan la demee woon. waaw préparation bi ñun lépp loo xamante ni war na si rek def nañ ko mais boo xoolee làmb ji dama sa jëlee ay feebar yu métti c'est à comprendre làmb ji dem na ba ne la sax sama yaay ne ma làmb ji dañ koy annulé. ndax parce que dama feebar. feebar dañ laa jàppoon ma non mystiquement boo gisee feebar bi mooy dafa maara boo xamante ne daf ma jege woon xama nga uh-huh. koo xamante ne nii maanaam si ñi nga xamante ne mara yu ma gën a teg si kaw moom si la bokkoon. Mm. yaa ngi dégg waaw mu trahir ma di ma jox ay bagage ma koy sangoori feebar. nekk Mara Diène du woon Mara Diène Kairé. Ah, du ah ok du woon musu fa dem. mais Diène Kairé sax moom demu fa. papaam moo fa dem ak la dëgër un. après euh, benn mara boo xam te ni da nga amoon ci moom confiance mu trahir la trahison bi nan la demee woon. waaw trahison mooy ni mu demee mooy man saa su ne sama diggante ak moom lépp lu ñu warloo dama koy def mais dafa am loo xamante ne li naan sa loxo càmmoñ bi sax bu ko wóolu yaa ngi dégg comme lii suñu borom dogal ci diggante bi xam nga mu jël sama xaalis ba pare tourné waat. mara moo jël sa xaalis. moo jël sama xaalis dama koy fay chaque combat. yaa ngi dégg combat bi deux cent mille la ñu waxaale woon boobu yaa ngi dégg ma yëkkati cent mille jox ko bu combat bi jeexee est-ce mu tourné waat dem jël xaalis su ñële xam nga ba pare di ma jox ay bagage ma koy sangoo ba pare di xam nga di waaw di feebar. billaay wallaay taalaay barki Seydina Mohamed. mais kan ma la waxoon rek de guerre moom moo fa demoon ak Père Kayre. waaw mais yow tamit ñun xam nga ne ay kañalan waaw te fu la ñuy dugg. te moom si jëm boppam ba man ak moom nii waxaatu téléphone ma wax téléphone ndax sama combat bu musaan a jeex même suñ ma daanee wala ma daan dañuy déggante li li ma ko war a jox ma ko ko jox mais ba tey wow ma ne ma kar billaahi. mais tey ba nga découvrir Lac de Guiers 1 ñu koy nuyu au passage moom géej waaye la nekk tey moom demoon na fa après yow nan la la def. non Lac loolu def ma dara si moom xam lu tax digganteem mook booy kayre mook booy kayre lan parce que ay xarit lan yàlla moo leen boole loolu lu ma fekkewul la kon loolu lu ma si wax est-ce que yaa ngi ndax booy xool yuusu doom père Balla Gaye na ak Diène Kaïré te teewul Lac de Guiers dafa ànd ak Diène kon am na lu mu séq ak papaam. Mm, ay xarit benn bakkan lañu lan kon foofu diggante boobu du ma si dugg. waaw loolu moom xalaatuma ko. Mm-hmm. mais après mm. ba nga découvrir loolu yow sëriñ bi yow kenn waxu ko yow yaa ko découvrir loolu sa bopp. no ama nga si biir moom yëpp duñ ko mën a wax. <laughs> waaw dañ ciy xaw a sànni tuuti nii rek mhm. a ah, mais moom ñoom bu ñu déggee ñoom man li may wax ñoom xam nañ ko. Mm. sëriñ bi fu mu dëkkoon. non garaawul yow yaa ma gën a xam waaye. <laughs> Fatma Dia mooy loolu. Mhm. Ah, ah, dama foor ci benn ci weewu bay wax nga ko. Mm. ba ngay dem di bëre ji xamoon nga ni jënd lay daan. <laughs> waaw loolu laa mos a sentir si suma làmb si combat boobu parce que boo xoolee sax jour boobu noonu dama xëy siisu jouru làmb yi si boppam sama yaay man ak moom kase ak yàlla suñu borom ñu nekk si salle bi ay côté midi une xam nga ñuy waxtaan affaire yooyu nag mënatuma téye sama bopp ay jooy dikkal ma quoi ma jooy fa jooy metti parce que man xam rek boobu am na lu may yëg. waaw am na lu may yëg am na lu may sentir après sama yaay moom comprendre ndax moom yàlla suñu borom bi xam na ne bu naree baax day ñëw ma waaw nii lay demee burul baax tamit bu ñëwee daf may junj waaw. billaahi taw war boobu noonu si sëriñ bi ma suul sama ndey billaahi yàlla bu ma am ndam si làmb ji ma jëm moom ma ko njëkk a wax. billaahi wallaahi moom moo ma njëkk a wax loolu noonu mais xam nga rek ay science daal yaa ma gën a xam. mais tey dem di bëre ji mu leer na ki ngay bëreel daray daan loolu après yow sa am yow ñi la entouré woon après ñoom xam nañ sa sentir nañ ko ci yow. non duñ ko sentir si ñoom benn instant lañ koy sentir mooy biñ jàppante ñu commencé bëri. ñu xam ne kat xam nga instant bi mbër du cent pour cent quoi. ci combat boobu nga dawee ba daanu. si combat boobu laa parce que du daw sax mais jàppante xam nga lan la doon doone daw ma arrière ban jox ko victoire boo xamante ne par disons arbitre la mais dama bëreeg moom bañ mi temps. mais daw nga ba daanu dama bëreeg moom dama bëreeg moom ba ñu mi xanaa kay benn affaire moo si nekk maanaam dañuy jàppante te du ma def action mais maanaam comme daw génn non non. dañuy jàppante te du ma def action fenn kay la doon ñaawe mooy arbitre naan pire may arrière di arrière di arrière ba ñu jox ko victoire te pourtant mu neexoon ma def ko ndax am naa ay am naa quatre mu am trois yaa ngi dégg su ma arrière woon rek lamb ji jeex mais Iba suñu entraîneur ñëw na ne ma arrière ma ne ma ko def. nga nañ ne instant bi booy na la ba pare ñu bari dañ doon wax ni Marley combat bi entraîné wul nekk te yow yaa ngi dund loolu da nga dem ba benn instant ñiis quoi. waaw ñoom loolu lañ gis ñoom dañuy gis ne xam nga liggéeyul entraîné wul. waaw mais yow la ngay sentir yaa ko xam Iba dafa ñëw ku dee ak sa bàmmeel ne ma arrièral ma ko du ko def mu ne benn avertissement moo ci des arrièral lamb jeex ma ne ko du ko def sax damay bëre ba ma yàlla mooy ma jël waaw. après daf la jàpp rek. Mhm. waaw après bi ñu taxawee dañoo taxaw bëre ndax boo xoolee action bi mu bi mu tenté noonu njëkk na koo def te antuwul. parce que loolu rotation la mais li koy dindi tamit rotation la boo defee boo orienté woo rek du dem mais xam nga rek boo waree daanu cuune ngay doon mhm. waaw. Diène Kairé daan Marley mu nekk combat boo xamante ne man mii xam naa ne mhm. bu combat bu la metti la boo siy ñëwaat sax mhm. da ngay xam ne lu la la mais ki daan tamit bu daanee Marley war na koo daan maar Marley bu ko daanee war na ko daan parce que xale la moom it mi ngi def ay preuve moom Diène Kairé nga jóge si Diène Kairé le nag wax dëgg yàlla nga jóge ci booy. ñëwaat ci booy boo xamante ne kooku nga xamante ne day raak ba naaw xotteeku fan si ne ñu bari nag d'accord ñun ci combat ak booy bawol yéen ñaar. Euh, non man si sama côté ak amateurs yi ak moom ay supporters am ak amateurs yi yëpp d'accord na xanaa ñi xamul làmb ñoo d'accord. mais man am na ñu ne ma carrément Marley pourquoi mu jóge si Diène dalaat ci booy bawol. loo leen si gis man ak booy bawol. Ah, moom laa moo tax ma ne yow mi posé question ma bi arbitre sifflé lu mu def dafa tourné comme wóokay billaay daw daw yu ndax xam naa ne barki sëñ Bamba bu taxawoon non booy bawal moom bu taxawoon sama combat ak moom dañ koy for. mais Marley combat boobu nga baal ma mais ñu bari dañ ne da xaw a yabaate. ndax yabaate moom mooy. nan ngay mën a dàqee nit ba mu daw. Marley doo taxaw Marley da nga ëppal ci combat boobu wala sa sëriñ bi daf la deewoon la combat boobu yaa ko moom. non du question de sëriñ sax ndax bu dee liggéey def nañ ko bu dee mystique nañ ko comme moom ni mu ko wutee ak ni ko defee yaa ngi dégg mais ñun li ñu soxaloon daal mooy arbitre bi sifflé ñëw dal si kawam boo xoolee arbitre bi mu sifflé dama dal si kawam bu ma ko maanaam dama def rotation mu ñëw ma daw ko joxaat ko mu ñëw ma indil ko arrêt droite mu waaw mu soxor moo <laughs> ah mais sant yàlla man moom man xam nga man dama wax li nga xam te mais gars yi nañ soxor moo la daan ah, xam nga musuma bare noonu waaw mais soxor moo la lan la la waxoon loo xamante ne mënoo koo supporter ba mënoo taxaw bëree ak moom booy bawal waxuma dara parce que a loo xamante nii dina ma dina ma empêcher wala mu may déranger mais bëggoon a humilier maar looloo la daan non du question de humilier sax dañoo xas-xas loo moom dafa ës la wax man damaa ës te man bu ma sañoon juróom noonu première quinze minutes yëpp dañ koy dañ koy xeex ba mu jeex deuxième quinze minutes bi ñu soog a jàppante mais moom xam rek yaa ma gën a xam ay science. booy bawol daan la nga jommi. non jommi wu ma de booy bawol kay moom munu ma daan sax booy bawol daanu ma de booy bawol daanu ma de wala yow seetaanoo làmb yow. ah bawol lañ jox victoire. waaw mais loolu noonu man buñ ma joxoon façon victoire yooyu sax bëgguma ko. la billaahi. Hmm. làmb jooju noonu ndam am fa noonu daan amu fa. làmb boo xamante ni damaa daanu boo ma nee mbër dama naan la làmb ji dama see daanu mais làmb jooju daanuwuma wóor na yàlla daanuwuma